dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk njàng mu digg doomu mi jamono ji ñoo ngi ci ay jafe-jafe ndax bëggu ñoo tëj école yi te bañ nañu jàngoroy coronavirus law ci biir école yi moo tax état bu Sénégal ci jaaxle dëgg la nekk xel mi moo làmber ana nan la koy lijjante loole ci mathématique yooyee ci la nekk yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na kilifa yi ñu dénk njàng mu digg doomu mi nee nañu njàngum ngoon mi dañu koy dakkal léegi daal na huit heures ba quatorze heures ñëpp ñibbi njàngum ngoon mi dakkal nañu ko ndax état bu bëggut tëjaat école yi ndax xam na ne bu tëjaatee école yi loolee catastrophe la waaye nag dakkal li nga xamante ni mooy njàngum ngoon mi du loolee rek mooy tere jàngoroy coronavirus law ci biir école yi ndax nag bu dee élèves yi ñoo ngi dajaloo ci suba gi loolee mën naa yokk woppa ji ndax kenn ku nekk xam na ne élèves yi jamono ji respecté wuñ li nga xam ne mooy mesure barrière yi maanaam duñu takk masque ba pare ñoo ngay dajaloo ñoo ngay kottante ci Sénégal nag su dee nag mag ñi ñoo respecté respectéwul mesure barrière yi ana tànk yi nga xam ne ñooy dem ci école yi nan la ñu koy respecté yéen gi di réew mi ko di cee nee na en tout cas li am ba des daal kilifa yi bëggu ñoo tëj école yi bëgguñu wopp ju law ci biir école yi yéen a kaay gi de la témoin bàyyi mbir moomee wax ci mbiri Idrissa Seck mi nga xam ne moo jiite conseil économique social environnemental yéen a kaay gi li mu gis mooy policiers yi ak gendarme yi ñooy xëccoo ak buuxante bundu kër Idrissa Seck ngir kenn ku nekk bëgg wattu kaaraangeem yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy bi nga xam ne daan nañu koy amal ngir nag càmbar fichier électoral bi journal bi nee na ñoo ngi ci dernière ligne droite maanaam ci mujjantal ga yéenekaay gi di enquête xëy na ci lu soxal wàllum cancer ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñu bare bare amee nañ ko si waaye nag ren ji la gën a yokk la ko waral mooy woppi coronavirus yi bëri na ñoo xam ne dañu doon def ay dépistage dépistage yooyee ren dafa wàññeeku bu baax a baax am na ñoo xam ne maanaam amee nañu cancer traitement yi nga xam ne moom lañ leen waroon a ñu si bari defuruñ leen ko la ko waral mooy woppi coronavirus yi nga xam ne ñi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi ñoom coronavirus rek lañuy baax moom la ñuy lijjanti yéen a kaay gi di laas nee na cancer ci atum bi def na lu dara jërul ci Sénégal ndax lu toll ci juróom-ñaari téeméeri junni yu fegg juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay nit ñàkk nañu seen bakkan ci cancer ci Sénégal maanaam 7893 décès ci 2020 bi ci lu jëm ci wàllum cancer yéen a gi di enquête nee na ci Sénégal coronavirus bi la ñu gën a bàyyi xel waaye cancer bi li muy rey bëri na loola yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na ñàkkug ndoxu Thiès nañu ko xaarandi la ko waral waa CNO nee nañu dañu am ay liggéey yoo xam ne moom la ñuy amal Mamadou Simbeng mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon IPRES kër googee nag ñu ko fa doon tuumaal yorin wu bon ñu jëlee fa Mamadou Simbeng yóbbu ko SNHLM waaye nag ña nga xam ne ñoo nekke nekk SNHLM di fa liggéeyee maanaam travailleurs ya jamono ji nag bëggatuñoo gis Mamadou Simbeng la ko waral ñoom dañoo gis na dafa yàq kër ga ay njublang ak yorin wu bon la yore SNHLM yéen gi xëy na ci Union africaine ci atum 2021 bi ak li nga xam ne moo leen di xaar lu toll toll si juróom-ñett ci ay priorité jëm ci wàllum koom gi ndax déndu Afrique néewaa na réew moo xam ne amul ay jafe-jafe lu soxal wàllum économie ak wàllum politique ndax déndu Afrique bëri na ci ay réew yoo xam ne jànkonteel nañu ay jafe-jafe politique maanaam ay crise politique bu passé loolee lu soxal wàllum sécurité ak yeneen poñ yoo xam ne ma ngi xaar waa Union africaine ci atum 2021 bi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy ci projet bii di BRT nee na BRT fi nga xam ne fi la nar a jaar lu toll ci fukki junni ci ay nit danañu ñàkk seen liggéey ndax dañu leen di yëkkati kaay gi di Le Quotidien xëy na ci armée sénégalaise ak taxawaay bi nga xam ne moom la ñu amal jamono ji ci àllub Casamance beeg opération yi nga xam ne moom la def bëri na nag ay bërëb yoo xam ne ay rebelle ñoo fa nekkoon jëlee nañu leen fa yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na waa MFDC ci atum bi def nañu ab classement ci réew yi nga xam ne ñoo am démocratie waaye nag bu dee Sénégal gis nañ ne démocratie bi baaxul ba pare wàllum dictature bëri na lool ci réew delloo si lu toll si ñaari téeméeri ci ay sénégalais ci réewum Sénégal maanaam sénégalais yooyee dañoo jëloon gaal gi dem ca diwaanu Espagne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février danañu leen indi yéen a kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu Kumba Gawlo Seck jamono ji lépp loo xam ne jëm na ci wàllu musique maanaam da koo teg ci suufa ndax dafa am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllu wér gi yaramam Kumba Gawlo Seck corde vocale yi moo am ay jafe-jafe yi ñoo ko ko wax yéen kaay gii di leese ko xëy ci xibaar bu garaaw a garaaw bu doy war Ousmane Sonko njiitul Pastef la benn xale bu jigéen porte plainte ci lu jëm ci wàllum viol ak lu soxal wàllum menace de mort xale bu jigéen bi la mu def ca plainte ba nee na Ousmane Sonko da ñëw di def ay massage waaye bis la Ousmane Sonko ñëw sàkku ànd ak xale bi daal di koy forcé ba tëdd ak moom bu jigéen bi nee na Ousmane Sonko yëmu sa di ko menacé ñëwaat na fa ba tëddaat ak moom ba pare xamal ko na ko lii soo ko nettalee kenn du la gëm te mën naa laa sànk ndax doole ji nga xam ne amee naa ko ci réew meek sama tolluwaaye loolee lépp la xale bu jigéen bi def ci plainte bi section de recherche gendarmerie déglu nañ xale bu jigéen bi ñaari yoona